Euh, man dal ci sama gis-gis euh, li ma bëgg euh, ci école bi moy mu nekk école d'excellence nga xamné euh muy Sénégal muy Afrique yépp même sax bo gisee bitim réew ay école yu melni ah bu amé tam du bari li ma bëgg moy mu nekk ben référence bu mag té dama bëgg tam doomu africain yépp fu ñu munti nekk fi ci Afrique surtout ci sous sous région bi ñu mëna fi indi sen doom yi parce que da ngay gis actuellement ay ay ay doomu Afrique yi yow ni sen dom yi bitim rew parce que dañuy bëgg ay école yu rafet ñun nak ñu bëgg leen xamal ne école bu rafet fi la fekkee bax ba paré bolé si ak jangalé bu tax bu dëgër bu bax bu rafet mom tamit. donc sama école yi yëpp da ngay gis ne euh, dañuy leen di duñ leen duñ leen dañ leen di nangu dafa ben ben benn ay ay ñu indi fi nga xamné dañ leen di dañ leen di jàngalé jàngal spécial pour ñu tam ñu jàng comme ni fi ñu mëna égg rek ñu yóbbu leen fa waaw da ngay gis dañ am am na mos nañu génné ay élèves yi nga xamné ne dañuy am sen brevet sax euh, parce que dañ leen di toppatoo nak nak à son rythme l'essentiel dal ku nekk dal da nga jàng dal à ton rythme. waaw école nag entreprise la dafa am ay charges donc il faut aussi nga mëna fay ñi ngay ñi ngay. Euh, ñi ngay employé ngay recruter foog nga mun leen fay donc il faut nga laajte tamit ku nekk euh, indi sa participation di fay sa scolarité mais toujours dañuy am toujours ay système u bourse aussi nga xam ne ñi fi bëgg a ñëw tam seen seen doom ñi vraiment mën a jàng bëgg a jàng te amuñu doole ah ñu seet aussi naka la ñu mun def pour jàppale pas ñëpp nag parce que sinon kon du dem. am na ay bis yu ñu prévoir ay bis yu jógee Dakar di ñëw ba fii ak tam Petite Côte bi dina am bis bu jógee Petite Côte Petite Côte pardon euh, ñëw ba fii.